may gis ñu ne wàllu en arbitre bon ça m'a fait sourire parce que man dama jàpp ni euh, ñu njëkk artu mhm. ci parrainage ñu njëkk xeex ci parrainage mhm. parti démocratique sénégalais ci la bokk mhm. tey ñu ciy wax ñëpp dañ ñu fekk si suñu ay position en réalité peut-être avant bi ñuy wax ñun ñu bëri fu laaluñu wala ñu bëri tey dañ taxawoon ci posture comme PDS bugguñu woon mu nekk première force politique de l'opposition bugguñu woon trop à chaque fois que bu PDS jële initiative ñu fekk ko ci. Mhm. mais ñun ñëpp xam nañ ne ñun dañoo yàgg xeex mbirum parrainage. Mhm. d'ailleurs même élection présidentielle yi gis ngeen bi ñu ciy dem liñ ci def pour que élection yi ci seen jëmm bopp bañ a am ci anam yi ñu bëggoon mu amee à lu ñu ci am mooy ay candidats yoo xamante ni dès le lendemain des élections dañoo tenir une conférence de presse ne ils ne reconnaissent pas ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi. te ñu fàttalil encore une fois que acteurs yooyu def loolu ñoom ñoo dem ci dialogue national pour ñeen ñi mais ñoo dem ci dialogue politique le PDS ne pas partie prenante au dialogue politique te pourtant si dialogue politique boobu lañ entériné lu tax effectivement parrainage amul ci local. Mm-hmm. te pourtant waroon nañ ko mën a régler une bonne fois pour tout parce que man jàpp naa ni parti politique yi mënuñoo remplacer la représentation nationale su ñuy dem bay déggoo ci ay kaddu. waruñu tey di jalgati loi ci loo xamante ne ay acteur politiques rek ñooy toog tëju dëggoo ci loolu pour def ko mais loolu yëpp saa a été fait parce que PDS bokku ci woon mm. mais ñun on est très à l'aise sur la question on mm. n'est pas tey un arbitre mm. dans ce débat la encore une fois débat bi dañ ko poser bien avant acteur politiques yi fi nekk yëpp di ko poser ñu xeex ko nag parce que parrainage bi erreur la parrainage bi piège la tey la loi elle la bien encadré la nombre de parrains. mais ñun liñ ci gënoon jàngat mooy à l'époque le camp présidentiel moo taxaw fii ñu ne ñoom dañuy dem vers la conquête de au minimum trois millions de parrains mais loolu fii piège bi nekk mooy dañ ne citoyen bi yow amoo droit. parrainer ñaar parrainer ñaar. waaw donc doublon mais yow soo demee ba ut 3 millions de parrains. ça veut dire que psychologiquement ceux qui pour toi. signal la pour pare parrainer la. qui se disent dans a tête que mouvement parallèle kii donc yow éliminer nga 3 millions d'électeurs potentiels ci loolu keneen ki aussi suivre rythme boobu dem ut 1 million de parrain hmm. finalement ñoom dara dootu ci des dara dootu ci des <laughs> après sur les 3 millions même bu nekkee 60 000 électeurs nga dem déposer parce que moom la la loi bi may hmm. mais il te reste en marge 2 millions 900 mille et quelques parrains yoo xamante ne yow ñeneen ñi duñ xam parrain yooyu nan lañ koy nan lañ koy defee. Mm. c'est une boo xamante ne tey pour man dafa anti démocratique. te c'est effectivement c'est vrai parce que tey mais parrainage bi ci anam yu ñu koy defee ak li ñuy soxla ci ay informations du parrain. mais c'est c'est des élections avant la lettre. Mm. tey ku la parrainel njort nañ la yow lay voter. Mm. parce que munoo nekk candidat à une élection ma ñëw parrainel la te fekk man jàpp naa ne duma la voter amul sens. donc ça viole quoi ça viole le secret du vote mm-hmm. su violer secret du vote ça veut dire que tey am na principe boo xamante ne principe inaliénable boo xamante ne ñoo ngi koy violer ci en matière électorale loolu benn la benn bi mooy libre participation mais effectivement il a raison la démocratie dafa am coût mm-hmm. nañ ci dépenser cent milliards ñun ñoo bëgg na suñu démocratie taaru mm-hmm. ku mu neex mu saan nga sentir ne war nga mën a dem élection war nga mën a dem élection maintenant foofu lay répondre waaj mais am na lu fi nekkoon parrainage ñëw rek fekk fi un vide parrainage dafa ñëw fekk ñu am un système fekk ñu am des principes fekk ñu am au moins ay voies et yoo xamante ne moom la ñuy emprunté pour dem élection boo nekkee indépendant ñu exiger la 10 000 signatures mais les 10 000 signatures ça n'a rien à voir avec les 60 000 signatures yow booy dem di uti 10 000 signatures nit ki duñ dem ne waali demal uti 3 millions de signatures doo mobiliser tout l'appareil d'une coalition tey li tax ñuy nommer nit def ko euh, direct directeur des parrainages non mais mais mais en réalité c'est parce que tout simplement bëgg nga ko def un enjeu avant la lettre ñëpp nag tombé ci piège bi dem ci et ça rendre le jeu effectivement euh, man daal mhm. jaaxal naa mhm. jaaxal na ma daal parce que euh, il faut pas que le président Macky Sall joue avec les Sénégalais mhm. parce que en réalité tey mucc nañ ba génn ci yenn yi Et cette question aurait dû être derrière nous. Mm-hmm. Un autre fait important. pour terminer oui. cour de justice bu CEDEAO. Mm-hmm. moom moo jox injonction Sénégal nañu bàyyi loi bi ñun il faut pas que tey le président de la République bi nga xamante dem mooy suñu garant constitution moom mooy dem di signer suñu ay traité di signer suñu ay convention te ñun ñëpp ñu xam ne suñu constitution mooy moo wax ne les lois supranationales ñoom ñoo gën a kawe suñu constitution dañ ko war a appliquer. Mm-hmm. su ko neexee mu appliquer su ko neexul du ko appliquer autorisé nañ tey ñu fermer suñu frontière ak Mali sur décision de quelle instance de la CEDEAO pourtant moo ngi koy appliquer à la lettre te pourtant moo ngi lor waa Sénégal mais quand la CEDEAO di bàyyi leen parrainage bi baaxul mais diantre pourquoi chef de l'État du ko appliquer mm. donc ñun on se pose ces questions donc c'est c'est c'est pourquoi il faut que ñun ñi ñëpp ñu delluwaat ci li amoon mm. que wàllu en tout cas le PDS dans wàllu mhm. nekkuñu arbitre dans ce combat là buñ ci jiituwul kenn jiituwul leen ci combat bi et ça c'est extrêmement important comme effectivement rétablissement de la de la vérité allez Pape Djibril parrainage ou pas parrainage